teeree ba ko bëgg a def. Mbadou. far am na boobu benn film yi doon far sa rek mu dam ma xawma. waaw waaw yow yow nga fa ñaari yoon ñëw naa ko. ñaari yoon ñëw naa ko. waaye nag ngeen yomb. waaw benn vidéo laa gis rek ma ne gars yi mais ngeen woo ma ma gis. wax dëgg yàlla. <laughs> dama dagal bi ma ndikkee lu mu daw xam na. ki ma indi dama ne ko daw xam na. alors dagal bi kon tubaab nga jógee. tubaab laa jógee de. d'accord waa dëkk bi seen. ñu nga fay ñu nga fa di la ñaanal ñëpp nga ñaanal. kenn raxu la kenn kese yàgg li nga way sëñ Fall nag moom awa su awa bu sëñ bu nekk daal kii trop Aliou balaa ko jot nii léegi dégg ngeen faram bàyyi léegi nag naa ko numéro boo xam ne da ngeen may ak ci groupe bi may dugg di waxtaan ak yéen. waaw dugg na ngeen jaajëf naa dugg waaw. Aliou jërë nga amul wala dégg ngeen sama bopp. saa mooy doomu ndeyu mbay. waaw mbay ku ca. ah mbay. 856 aw bi moom lax bi hmm. ñaareel bi moom soow bi aw bi man sama lax soow bi soow mi ci dem ñaareel bi ne ko may sama soow bi dem ci lax bi mu lekk lax bi pare naan soow bi naan booloo jambaajo booloo waaye daal doo ko jiwoo yal na la yàlla yal na yàlla gën a wéral baat bi yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar yal yàlla gën a wéral baat bi kontaan nañ